leen rek lépp lu ngeen bëgg Sëñ Tuubaa yi ñu fekk ci ndax lépp lu ma a ñaan ci foofu mënu Xuseyn ñaan na ko ci dëkk bi te lu mu ñaan force force mu am a góorgóorlu baax rek a xam ne jëm kanam te xam ne liggéey bi ñu ngi seen kanam ñu seen ginnaaw seen wóote ñu seen kanam ñu seen ginnaaw leen jàppale seen taxawaay seen passif kon ñu ngi bu baax ci fi teew ñëpp xam nañu bég bëgg nañ ci yéen lool liggéey bi nag ñu gën a jëm kanam te fii fii fii ba àgg rek fii ba àgg rek mu àgg fa barke xam ne daal da gën a lëkkaloo da nekk benn keneen ku nekk la yéen sa yéen sa morom te gën a góorgóorlu bu baax rek di sant nag si di sant nag ñi fi teew yëpp di sant préfet xam ne moom fi teewal président de la du ma daal ci jàmm am yi xam ne moom teewal ministre intérieur ak président de la République di ko sant di gërëm taxawaayam ndax bu ñu gis ne unité bi am ci Madiyana ci kanam saa bu ñu diggee euh, da leen recevoir taxawu leen jàpp leen des unité mu taxaw ci kon nag préfet ñu ngi sant la gërëm léegi gëj gëj suñu cant ci président intérieur président de la République mu gën jàppale Madiyana tax ana Madiyana ci kanam da leen taxaw seen unité unité mooy ndox mi ak santé bi wér ndax man yaa ku ne xam ne mbaar yi lépp lu ñuy jaay dorog yamba euh, sàngara lépp mu am fi ci ci yi lu bon lu ne am na ci te ab brigade soxla nañu ko ab brigade kon préfet ñu lay sant ñu mi ak police boo xam ne dana aar aar si Madiyana ndax lépp luy saay-saay bu am ci dëkk bi rek mi mi mi mi biir quartier bi ci ci yi te defoo ne loolu jox nañu ko jox nañu ko ba sonn sonn sonn sonn jox nañu ko ba sonn bind nañu ay suñu bind lettre

te mooy ki jël kër principal mu ne ma lépp kër kër yi am na kër nga xam ne day farata day farata day day muy jëkkee mooy li nga xam ne mooy intérêt général ñu ngi gis jaar waaw kon nag loolu ngeen jëlee ngeen taxaw fexe nag ndaw ñi amum xëy amum liggéey ñu jàppale ci projet yi jàppale leen ci ci assainissement bi bu gën assainissement moom assainissement mooy jiitu lépp ab dëkk su amee kër yi amul assainissement amul benn njëriñ kon nag ngeen taxaw ci Madiane assainissement bi Madiane amul yaatu ba ndox mi bu tawee du taa sa ab kër bu rafet tam benn assainissement amul benn njëriñ day fexe résultat bi tam ñu dem ba un ba six Madiane lépp loo xam ne dëkk bi ñu koy soxla laaj ko nga indi ko ndax su élection jotee wala lu ñu mën a def ci at dëkk bi Madiane mooy mooy mooy première mooy jënd ci lépp lépp lu ñuy def Madiane ji bu dee wàllu vaccination bu dee wàllu njàng bi wàllu éducation bi wàllu lépp organisation yi yëpp yëpp yëpp Madiane kenn moo leen ci seen wàll wàllu impôt ñu koy fay ñu fay impôt patente lépp bari na commune Tamba impôt Madiane yi gar na yëpp ñu ko teg ci impôt ñoo ko jox ñoo ko ñoo xam ne seen bi Madiane kenn mu leen ci impôt bi lépp tax lépp xam dëkk bi koy wax dafa koy laaj doo laaj ma yàlla koy jox moom sëkk mooy taxaw leen science yi ba seen yële yëpp man mooy sécurité bi ak santé jël ko a ko def te muy jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bu sante yàlla jullit ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama di nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi mu yàggal ko fi loolu te wér ci noonu itam la ñuy nuyoo Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad di ko nuyu di ko siyaare bu baax di jaare foofu itam di nuyu suñu Serigne Serigne Cheikhouna moom Cheikh Abdoul Ahad di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te ci noonu itam la jaare foofu di nuyu Cheikh euh, Ahmadou Cheikh euh, Serigne Say Mbacke moom Serigne Sohaybou ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare di siyaare mboolem kilifa yi diine yi ak mbooleem seex si nga xamante ni bi ñoo fi teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di am mbégte bu baax itam ci jotaay bi ak ni mu demee macha allah euh, raw na njot wax dëgg yàlla am na ci mbégte bu baax a baax a baax ndax yaakaar naa ñii wax ànd taxawu na bu teewee fii tey dinañ xam ne ànd taxawu Madiyana am na sëriñ soo xam ni teg nan ci loxo loolu it ñu ngi ciy sant bu baax di gërëm di nuyu sëriñ si nga xamante ne bi teew na fi muy sëriñ Mamoun Mbacke ñu ngi koy di siyaare Serigne Alhaaji moom Serigne Abibou moom it ñu koy nuyu baax di ko siyaare ak Serigne Bass Mbour moom Serigne Mountakha ñoom it teew nañ fi ak mbooleem délégation yi nga xamante ni ñoo fi teew yëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di nuyu itam monsieur le préfet ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare di nuyu euh, suu préfet bu baax itam ak mboolem service yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci biir commune Touba yëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di siyaare itam monsieur le maire monsieur Abdoul Ahad Ka moom it ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare di nuyu chef du village bi nga xamante ni bii mooy village u Touba Madiyana moom itam ñu koy nuyu baax di ko siyaare muy Serigne Abo ñu ngi koy nuyu baax di di ko jaare ci turu Serigne Saliou mi nga xamante ni bii moo fi teew di nuyu itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xamante ni bii mooy taawu Serigne Cheikh Serigne Cheikh ak Serigne Mourtada Mbacke mi nga xamante ne bi moom itam dayndale ci liggéey bi wax dëgg yàlla ñu koy nuyu baax di ko siyaare ci noonu itam la ñuy kenn la wax dëgg yàlla ñu leen di nuyu baax di leen siyaare di am mbégte bu baax a baax itam ci jotaay bi te di leen maxawu ci coono yi itam mel na ni toogaay bi yàgg na ci loolu itam la ñuy profité di nuyu mbooleem invité yi nga xamante ne bii teew nañ fi muy invité bu góor invité bu jigéen mag ndaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax di nuyu itam imaam yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci Touba Madiana yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax mel na ni itam mën nañ cee boole saam ak jënnatu ndax mel na ni délégation yëpp ñëw nañ wax dëgg yàlla ñi nga am mbégte bu baax di nuyu bàjjenu gox yi ak mbooleem mbootaay yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci Madiana itam di nuyu waa Madiana yëpp sones bi diaspora yi itam wax dëgg yàlla duñu leen fàtte ak Madiana 1 ba mu mel ni comme ni ko mbokk yi waxee noonu la demee Madiana nekkatul Madiana 1 ba 10 Madiana 1 ba 7 la ndax diaspora bi wax dëgg yàlla ñoom itam ci liggéey bi lan ñi ngi am mbégte bu baax mu mel ni bi ku mag bii nga xamante ne bii nag moo na fi boole ànd taxaw Madiana moo ko organisé li tax mu organisé ko itam ab association la boo xamante ni bii lan koo sos bañ ko sosee léegi mu toll ci juróom-ñeenti weer ndax ñu ngi ko ci mois de mars 2020 defe naa boo xoolee date boobu ak léegi ci juróom-ñeenti weer lay toll ñu sos ko ci anam yoo xamante ni bii comme ni ko Serigne Saliou waxee rek loolu bokk na ci li tax ñu sos association bu am solo bii ndax manquement yi nga xamante ni bii moo nekk ci na te askanu Madiyana itam mënunoo seetaan saa bu amee problème rek sëñ bi di leen dimbali ci loola ndax mel na ni juróomi forage yi paanoon ci jamonoy mbax mi kenn ku nekk gis na pastéef bi nga xam ne moom la ci Serigne Cheikh def ak xaalisam bu bari bi mu ci defoon ak oto yi mu fi yabaloon yëpp ngir bëgg askanu Madiyana na denc ci jafe-jafe yooyu ci loolu nag lan jàngate ni est-ce ñun nag duñ xoolaat bu baax suñ bopp ndax dëkk bu mel ni Madiyana ku la dëkkal may la kër kër gam la may tey boo ko doon jaay mu jar ay millions yu bari nga wëlbati ko saa boo amee jafe-jafe di nga xaar sëriñ ba jaaduwul loolu moo tax ñu taxawal ànd taxaw Madiyana ànd taxaw Madiyana wax naa ne biñ ko taxawalee léegi ci juróom-ñeenti weer na toll ñu composé ko nag ci fukki commission ak juróom fukki commission ak juróom commission bu nekk am na loo xamante ni bii moom lañ ko euh, moom lañ koy saytuloo pour mu war ko liggéey mais ndaje mi nu fi dajalee tey dafa nekk ci commission environnement ak lancé waale kuréel gi ngir mbokki Touba yi ak mbokki Madiyana ak mbooleem fu nit nekk ci Sénégal rek xam ni ànd taxawu Madiyana kat léegi kuréel la goo xam ne samp na ngir bi ndox ci yitte yitte askan wi bu ko defee nag mu mel ni ànd taxawu Madiyana ba mu tàmbalee ba léegi réalisé na fi réalisation yu am solo ndax comme ni ko sëñ Saliou waxee Madiyana ku xam na ni depuis fanweeri at ci ginnaaw manqué woon na ndox lool ba ci couvre-feu bi ñi ngi doon jooyum ndox waaye suñ borom dimbale nunu bi nu taxawee sukkandiku ci ñaani gaa yu baax yi nga xamante ni bii ñoo nu dimbali ci leen amee fit mën a taxaw liggéey loo xamante ni bii mën nañoo taxaw wane résultat boobu tey ci juróom-ñeenti ci juróom weer mu mel ni ndox moomu ni mu jafee woon ci Madiane 1 ba 6 suñ borom dimbali nañu ba Madiane 1 ba 6 yaakaar naa ni gisatoo ci genn soxna soo xamante ni bii day gàddu ak paan di rooti ba ci màggal gii nga xamante ni bii moom la suñ borom dogal mu jàll defe naa dañ doon root ci Madiane waaye Madiane moom suñ borom defal na nu tawfeex loolu nag ñu ngi bu baax Serigne Cheikh Mbacke ak mbooleem njaboot jam gi nga xamante ne bii ñoom na dëkkal ci euh, Madiana te lu jàpp leen ci liggéey bu am solo boobu mu mel ni ndox moomu bi nga ko xoolee réalisation bi nga xamante ne bii moom la ci ànd taxaw Madiana def toll na ci 7 millions 250 mille ci 9 mois yi 7 millions 250 mille loolu la ci ànd taxaw Madiana def ànd taxaw Madiana bi mu defee loolu euh, ci kaw jàpp ndalu nag maa u rahmati ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare a passage wax dëgg yàlla Serigne Moustapha Dieng moom itam ak équipe bi nga bi nga xam ne moom la àndal dimbali nu ci réseau bi ba lépp loo xamante ni bii war nañ koo def ci réseau bi itam ak jàpp dal am na ci waaye nag am na ak leeral tuuti lu ñuy wax lu ñuy def foofu matériel yi nga xamante ni bii moom la ñuy def ci liggéey bi kenn fépp ci ànd taxaw Madiyana tiwo yi nga xamante ni bii moom la ñuy gas itam kenn fépp ci ànd taxaw Madiyana maawu rahmati li nu dimbalee mooy ubbil ni réseau bi la nu dimbalee bañ nan ko sax ba plombier yi nga xamante ni bii ñooy liggéey liggéey bi sax ànd taxawu Madiyana moo leen di fay loolu nag yaakaar naa liggéey bu am solo la mu mel ni biñ paree ci loolu dugg nañ ci social bi social bi itam ñu ngi nuyu Serigne Baba Gaye mi nga xamante ni bii moo yor commission sociale bi te moom itam mu jot cee liggéey liggéey bu am solo moom ak membre yi nga xamante ni bii ñoom la seqal liggéey boobu mel na ni social bi itam ni mu jamee ni mu demee ci jamonoy tabaski gi ñun ñëpp gis nañ ko daanaka jërul di wax détails yi mën nañoo wax directement rek li nga xam ne moom lañ def ci social ci social bi muy un million huit cent euh, huit cent cinquante cinq mille un million huit cent cinquante cinq mille def nañ ko ci social bi ginnaaw loolu itam am na soxna soo xamante ni bii suñ borom da koo tegoon méttiitu tànk ba mu jaaxle lool moom ak fameem suñ borom jàppale ko ba bi ko ànd taxaw Madiyana yëgee taxawal taxaw na ci taxawaay bu am solo jox ko enveloppe bu duun boo xamante ni bii mën na cee wéyal ak pajoom ba yaakaar naa faju ba dana dana yegg yëmunu ci loolu itam am na keneen koo xam ne ci Madiyana na diaspora bi la bokk jëndal na ko puus-puus boo xamante ni bii euh, defe naan ci fan yi rek dina egg moom loolu bu ko defee ñi sant bu baax sëñ Baba Gaye moom nga xamante ni bii moo yor loolu bu ko defee mu mel ni ci communication bi itam am na liggéey bu am solo boo xamante ni bii def nañ ko ci màggal gi ba fii ñu toll ñoom itam mel na ni huit cent soixante quinze mille def nañ ko ci communication yaakaar naa ci ndo manquement ndox yi nga xamante ni bii mooy am Touba waxuma na Touba ànd taxaw na suyee na ci rôle bu mag a mag mag boo xamante ni bii ci ndoxum Touba man nañ ni ànd taxaw na def na ci lu am solo ndax biñ gisee ni dañuy tëj wan yi dugg nañ ci terrain bi te biñ duggee ci terrain bi dañoo wut ay technicien ak ay minebar ak ay plombier génne leen budget bu mag yebal leen ci terrain bi ñu dem saytu ji wan yi nga xamante ni bi moo nekk ci dëkk bi ba xam nan moo indi gàllankoor bi ci ndox mi loolu itam ban demee gis nañ ni wan yooyu ay sabotage am na ci xawma nag fan la amee waaye ci loolu ci la audio bi jaare ba dugg ci kër Sëriñ Muntaxa ñu bari ci liggéey bi ñu bari nekk ci an taxuma jaana xam nan liggéey boobu nu ma demee bu ko defee mu mel ni Tuubaa ci kanam it kuréel gii lu mat leeral la ndax dafa niroo ak Touba ci kanam kuréel gi biñ ko taxawalee ba am ndigal ci Serigne Cheikh lan njëkk a def mooy dem ci Touba ci kanam yaakaar naa kilifa yu bari biñ demee ci ñoom waxtaan ak ñoom dan noo wax nu na ngeen dem ci Touba ci kanam ba ci sëñ Cheikhu naa sama sëriñ dan ne nu baa dem ngeen ci Touba ci kanam ñu ne ko dem nañ ca foog fekk na booba sëñ Cheikh yabal na nañu ci Touba ci kanam ñu waxtaan ci ak ñoom ba suñ boroom dogal ñu wax ci wax yu rafet mel ni ñoom ak ñun ñoo bokk liggéey bi ndax an taxaw Madiyana dafa jàpp ni li muy def ci Madiyana Touba ci kanam la war waaye nag Touba ci kanam su fekkente ni dafa nekk Touba goxi tuubaa yépp di ko soxla Madiyana soxla ko urgent te amul kenn ku taxaw ngir di ko gàttandu su boobaa jafe-jafe mën naa am loolu moo tax lépp loo xamante ni bii ñu ngi koy liggéey ci Madiyana itam ànd tax euh, Touba ci kanam lañ ko àndal muy jàppante boo am solo mel na ni bin amee problème fii rek ci euh, toj-toj bi amoon fii li waral ndox mi arrêté ci boori jàkkay baay jaraaf ji ndox moomu ñi nga xamante ni bi mooy waa Ecotra ñoo bënnoon tiwo boobu bin ko bënnee mënuñu ca dara waa Ofoor ñëw nañ ci waa Maawu Rahmati ñëw na ci suñ boroom dogal la tax mu jag ba ndox génnatul ànd taxawu Madiyana moo ko def kon nag loolu taxawaay yu am solo la mel waa kay mel na ni ci liggéey yoonu Touba yi itam bi ko Serigne Mountakha joxee tuubaa ci kanam ngir ñu defar yooni Touba yi ànd taxawu Madiyana du ni nekkul ni membre la rek ci Touba ci kanam day dagg ay rosi dañuy dagg ay rosi ba noppi wëlbati ko kuréel gi jaayante waat na ci tur ànd taxawu na ambuloo bu am solo ngir jàpp ko ci liggéey bu am solo boobu bu ko defee nag ñu mu mel ni ànd taxawu Madiyana def na lu am solo ci ci ci ci ci ci ci ci kii bi ci neuf mois yi nga xamante ni bii moom moom la jote def bi ñu xoolee total bi yëpp dafa nekk onze million huit onze million huit cent quatre-vingt mille loolu mooy li nga xamante ni bii moom la ànd taxawu Madiyana def bu ko defee nag mu mel ni kuréelu ànd taxawu Madiyana euh, mi ngi def appel ngir liggéey bu am solo bi nga xamante ni bii moom la woote muy environnement na zéro déchet ñi ngi ci tàllal mbooleem kilifa yi nga xamante ni bii ñoo nekkee ci Touba ak ci commune bi ak ci région bi yépp di tàmbalee appel bi ci monsieur le président wàcc si ci préfet bi nga xamante ni bii moo ko nekkal ci diiwaan bi ak sous-préfet ba wàcc si ci si ci euh, euh, maire bi nga xamante ni bii mooy commune bi ñi ngi leen di tàllal loxo bu baax ci Madiana zéro déchet googu bu ko defee mu mel ni euh, waa Touba it ñu ngi leen ciy xaar di ci xaar waa Madiana ak mbooleen ñi nga xamante ni bii ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo fi nekk yëpp yor ay association ñu ngi leen ciy xaar maanaam kili kilifay administratif bi ak mbooleem waa Touba rawatina waa Touba Madiana ak waa Touba te kanam yi tam ñu ngi leen di xaar ci appel boobu ak mbootaayu bale yi tam ñu ngi leen ciy xaar ak femme d'affaires yi. ak bàjjanu gox yi itam ñu ngi leen ciy xaar ak association yi nga xamante ni bii suñ borom dogal na ñu nekk ci biir dëkk bi itam ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar ci liggéey bu am solo ci liggéey bu am solo boobu. ah ci li ñuy taxawal nag muy na Madiyana Zéro Déchet li tax ñi di ko def mbalit nit dafa mënul dëkk ak moom te ànd taxaw Madiyana dafa am gis-gis koo xam ni nekkul rek ni ndox mi. ak environnement bi mooy objectif ànd taxaw Madiyana ànd taxaw Madiyana nee naa leen taxawal na fukki commission ak juróom commission bu nekk am na lu mu ko santé pour mu war koo def mais ni muy doxe mooy lépp luñ song dañuy fexe ba daan ko wane ci résultat bu leer doo a jàll ci la neen loolu moom lañ def ci ndox mi fas ko yéenee def itam ci mbalit mi mbalit moomu nag ni nga xamante ni bii ni lañ ko bëgg a defee buñ ko lancé ba pare continuité lay doon nekkul ni dañuy lancé journée lancement bi rek toog téye suñuy loxo dinañ ci wane résultat bu raw bi nga xamante ni bii moom lan wane ci ndox mi am naa yaakaar ni ki nga xamante ni bii moo yor commission boobu moom itam am na ci discours boo xam ne dina ko ci def bu ñëwee ak mboolem ñi nga xamante ni bii ñoo ko ciy jàppale ñëpp dinañ def dina dina dina jàllale lool bu ko defee nag ñuy sant mbooleem ñi nga xamante ni bii ñoo fi teew di leen gërëm bu baax di leen masawuwaat ci coono yi rawatina suñu kilifa yii wax dëgg yàlla ak kilifa administration bi ñu ngi leen di masawu baax waaye nag soxna maam say moom dañ koy beral cantu boppam wax dëgg yàlla ndax liggéey bi ban ko taxawalee ba léegi yenduwul këram fanaanul këram saa bu nekk ci yittey ànd taxawu Madiyana lay dox te boo ko nee soxna si metti na wala naaj bi tàng na mu ni defaluma leen ko Serigne Cheikh laa koy defal Serigne Sohaibou bi laa koy defal mel na ni loolu laxasaay boobu mu takk tekkiwu ko mi nga ànd ak ñun kon nag loolu jaadu na bu mbooleem na taxawee ak bokki boppam ñu seedeel ko taxawaay bu am solo bi nga xamante ni bii mi ngi koy def ci ànd taxawu na muy lu am solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax di wàcce foofu kàddu yi mel ni waxtu bi dafa xaw a gàtt te mel ni am na yu ñëw waaye ñu ngi leen sant bu baax di ñaan daal mbooleem ku fi teew mu ñaanal ànd taxawu Madiyana ba yéene ji nga xam ne fas na ko yéenee rek ci Touba rawatina Madiyana mu def ko nu rawe nu kawe ci mat si Touba damay jéggulu bu baax mu mel ni moom la son boobu la rajo bi doon jàllale sax mu mel ni ànd taxawu Madiyana ku ci bëgg a bokk dafa am lu la ciy boole li la ciy boole nag mooy carte membre bi nga xamante ne bii da nga koo war a dagg muy boo ko daggee bokk nga ci waaye nag lii doxal kuréel gi itam mooy weer wu jot nga barkeeloo 500 francs boo ko mënee lu mu néew néew ku mën lu ko ëpp nag baax na am na social bu ñu yëkkati itam lii ñu leen wax ni leen def nañ ko ci social bi ci yooyu la jaar ak ci yeneen pexe ba def defe naa suñu baaba ngeen moo ko yor moom itam am na ay carte yoo xamante ne bii def na ko defe naa lañ koy weccee taxul mu seen ku ne mën na jàppal keelu ñaar fukk la ak ñeent fukk ñu ngi baax jërëjëf. ginnaaw bu di leen balu àq te di leen ko bal di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Mouhamadou Mountakha Bachir alxalifatul am li taifatil muridiya ataalala umro ñu koy ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou mi nga xam ne mooy borom Madiana waaye di ko ñaanal waa kër njabootu sëriñ Souhaïbou gépp di ko ñaanal it njabootu si Abdoul Ahad gépp dafay mel ni Baye Balla jaar na fi léegi xam naa du ñu mën a ndoppaat di lim mbooleem comme ñi mu waaye du mën a ñàkk ñu cité ñoo xam ne ñenn lañ ci ñun ñoo xam ne mënuñu leen a ñàkk a nuyu ñooñu nag dañu koy tàmbalee ci suñu sëriñ suñu mag suñu xarit sëriñ Mouhamadou Mourtada Seye ñoo ngi koy nuyu di nuyu bu baax it suñu mag suñu xarit sëriñ Sidi moom sëriñ Cheikhouna Mbacke moom Jean Abdoul waaye di nuyu tamit soxna man say bu baax di nuyu sous préfet di nuyu préfet waaye di nuyu mbooleem autorité yi nga xam ne teew nañ fi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte lool di am mbégte lool luy waral mbégte mi woote ñu wuy la dafa jafe te yàlla dafa dogal ñu woote mbooloo mépp wuy si kon wax dëgg yàlla duñu def lu dul di leen sant di leen gërëm woote bi nag li ko waral mooy loo xam ne ñu dëkk ñi nga xam ne yàlla daa dogal ñu dëkkee Madiana 1 ba 6 sans borom boole ñu boole seen pas-pas boole seen bëgg-bëgg boole seen yitte ak seen lépp def ko ci fexe Madiana doon gox boo xamante ne nii gox bu ñoŋ la boo xamante ne nii comme mas naa dégg Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké moom Serigne Fallou ak ñu ngi koy ñaanal sans borom yokk ay leeram te taaf ñu ci barkeem mas naa dégg mu wax ne ci ay kàddoom barab bee nga xam ne mooy makkatal mu karama mu ne dara nekk fóon a barab la woon loo xam ne ay néeg yi ban ak yooyu rek moo fa nekkoon waaye pour l'instant jamono ñu toll nii boo fa demee ak na mu taaroo ak na mu mel da ngay xam ne fii li fi nekk dañ ko fee def noonu la ko waxe woon mu mel ni dëkk bi nga xam ne mooy dëkku Serigne Touba bi te murid Serigne Bamba yi nekk fi kon yaakaar naa ne war nañ cee mën a amal taxawaay boo xamante nii war naa mën a mucc ay ba romb makkatal mu makkatal mu karama loolu nag ñun wa ànd taxawu Madiyana 1 ba 6 dañu koy tàmbalee fii suñu gox ndax olof dafa ne bay ci sa yow tànk moo tax fii ci Madiyana la ñu ko bëgg a wax dëgg yàlla fas yéene Touba doon dëkk boo xamante ne nii mooy gën a mucc ayib makkatal bu karama loolu nag bis bi tombeek bis bi nga xamante ne nii dañu ko woote di ci lancé lan la ñuy lancé. environnement environnement doon loo xam ne dafa mënut a ñàkk ci dundug doomu aadama ndax dañu ne masafatu min al iman set dafa bokk ci gëm yàlla bëri na ci ay yu bëree bëri xam naa waxtu bi moo ñu xaw xoj waaye kon dinañ ci leeral lu xaw bëri lu xaw bëri mu mel ni bis boobu ñuy wootee muy lancement environnement environnement doon loo xamante ne nii daanaka côté yëpp la ci côté yëpp ba pare ànd taxawu Madiyana rawatina jeunesse bi ak kilifa yi nga xam ne moom lañ ko àndal suñu sëriñ si ñi nga xam ne ñooy ñooy suñu lépp daanaka gën ñu ko bëgg gën ñu ko fonk di ñu teete nga xam ne daanaka ñoom ñoo ñuy wax defal ñuy def lépp loo xam ne lu ñuy xalaat la wala lu ñuy wala lu ñuy mébél la rek bu ñu eggee ci ñoom day fekk ñoom xalaati nañ ko noo xamante ne nii moo gën a mucc ay gën a baax gën a jëm ca kanam loolu nag doon tawfeex yoo xam ne dafay tax képp koo xam ne da ngaa dëkkee Madiyana nag ñuy sàkku nga feddliwaat sag laxasaay bu baax a baax a baax a baax a baax te jëm cee bay sa waar am na loo xam ne nag kersa la wala ni ñu ko mën a tuddee ñu baal ma ci kàddu gi ndax ci fi ñuy waxe am na ñoo xam ne waruñu ko wax kon ñu baal ñu ci kàddu gi ni koy waxee am na loo xam ne gàcce la gàcce weesu dëkk cib gox ay nit nekk fa say nawle say morom buñ nee la ñoo la gën a bëgg Sëñ nga fippu buñ nee njariñ daa ñëw nga fippu lu xew nga fippu ñu wëlbati ko takk seen i ndigg di liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal boo xamante ne ni dañoo boole di ko tuddee sëñ Tuubaa waaye liggéey seen bopp la ñuy ndax mbooleem loo xam ne dañu ko sonn ci amum ndox wala ñu amul cet wala lu mu mën a doon ñun ñooy wëlbatiku jëfandiku waat ci ba pare di xaalaatu fay wëlbatiku féete la ko sëriñ bi kon sëriñ bi dafa gore rek kon maa ngi lancé appel képp ku dëkk Madiana 1 ba 6 koo mën a doon liggéey sëñ Tuubaa moom damaa jàpp ne déggoon naa ko ci Serigne Mouhamadou Mamoun moom Cheikh Abdoul Ahad maa ngi koy nuyu au passage gisoon naa ko fii déggoon naa ko mu ne liggéey Serigne Touba jomb kenn kenn koo xam ne da ngaa am martabam wala dayok wala tolluwaay liggéey Serigne Touba romb la amul kon nag nañu feddaliwaat laxasaay yéen ñu dëkk Madiana 1 ba 6 waaye lii nga xam ne moom la ñuy lancé muy environnement ñu am ci ay bëgg-bëgg yoo xamante ne nii ak i mébét ak i naal yoo xam ne dañuy ñaan suñu borom subhaanahu wa tabaraka wa moom mi nga xam ne lu sotti moo ko sotti waaye suñu sëriñ suñu yaakaar sëriñ Seexna Cheikh Ahmad Bamba Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mi nga xam ne lépp mooma lépp suñu borom moom la lépp yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooma lépp lu baax mooma moom lañu ñaan di ñaan ci njabootam gii sa borom dimbali ñu kattanal ñu dëgëral ñu ba li nga xam ne lu ñu mébét la wala lu ñu bëgg la wala lu ñu fas yéene la ñu man koo def fii ci Madiana nu kawe suñ jot muy Madiana zéro déchet Madiana zéro déchet loolu nag ñu ciy woo bu baax a baax a baax a baax mbooleem autorité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Touba ni ñu ko waxe woon léegi ku ci demee ni suñu xarit monsieur le maire Serigne Makhtar Diop waaye su sous-préfet waaye préfet préfet Serigne Matar waaye sous préfet waaye monsieur le maire suñu papa suñu mag Cheikh Serigne Abdou Lahad Ka moom it ko ci woo bu baax a baax a baax di ci woo suñu collaboration yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal di liggéey lu ci mel ni waa ICC wala waa brigade gendarmerie wala sapeur pompier ba ci police nationale ñëpp ba ci Sabinatul Aman ñoom ñëpp suñu ay collaboration lañ ndax Madiyana zéro déchet lañ wax te tout le plan lañ wax côté yëpp bàyyiwuñu benn côté kon ñëpp la ñuy collaborer ak suñu mbokk yi nga xamante ñu man cee profité nuyoo waale docteur ak docteur Abdoulaye Fall mu mel ni environnement la ñuy te environnement ku ne xam na ne li mu li nga xamante ne nii moom moo koy war a doxal cent pour cent dafay loo xamante nii lu xaw a jafe la loolu moo tax ñuy tàllal loxo ñëpp ndax bëgg dañuy dañuy wër di topp ci kër yi ni comme ni ko yeneen quartier yi amee buntu kër par buntu kër ñu taxaw fa jël mbalit mi man koo évacuer yóbbu ko moo xam ay camion la moo xam oto mbalit spécial yi ànd ak machine bi la moo xam ay charrette la yoo xamante nii dañ koy am nga xam ne dina mën a génn mbalit bi ci biir kër gi wala brouette boo xamante nii dina mën a génn mbalit moo xam ne dafa nekk ci biir kër gi te nekk ca ruq ba wala bale yoo xam ne dinañ ko mënee bale mbedd mi wala lépp loo xamante ni ni daal dafay laaj mbalit ñoo ngi koy sàkku di ko demande autorité yi di xam ne lépp loo xam ne luñ ciy def la ñoom la ñu koy defal kon ñu ngi leen tàllal loxo bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ñoo ngi leen ci tàllal loxo bu baax a baax a baax a baax a baax di leen wax ne ñun ñi ngi leen di xaar fii ci Madiyana ñi ngi leen di xaar fii ci Madiyana bu ñu leen gisee ñi ngi leen di xaar bu ñu leen gisul ñi ngi leen di xaar waaye nag dafa am loo xamante ne nii dafa sës ci ñun muy suñu kilifa yii ndax lu ñu bëgg dañu ciy dimbali dañoo wax ne lu ñu bëgg ñooñu ciy dimbali ndax Baye Balla leeral na ko daanaka du jar ma ci ñëwaat ba ñu tàmbalee sos association bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou yàlla na sa borom guddalu fanam loolu te wérali cëram wax ci waxam jëm ca wax ñu dem ci Serigne Cheikhouna mu feddle ko jaar daanaka fu mën nañ ne fu raw foofu mbooleem kuñ dem ci njabootu Serigne Souhaïbou wala njabootu euh, Cheikh Abdoul Ahad noonu rek lay demee loolu doon mbégte doon tawfeex boo xam ne dañoo ubbil ay buntu ba lépp lu ñu laal day mel ni suñu borom dajee teg loxo pour san ni ñu ko mën a waxee ànd taxawu mat yàlla bëri ko ci mbattal la bëri ko ci mbattal nag da ngay teg sa loxo mu dem nga ñàkk a teg sa loxo mu dem kon ku bëgg a dem na nga ñëw ñu teg ci suñu loxo ñu tegandoo ci suñu loxo mu dem boo diwuñu kenn ñi ngi woo ñëpp ndax li ñu bëgg mooy Touba zéro déchet te xam na ne ku ne xam na ne Touba zéro déchet ak suñu jëmm yi xeebu yii nga xamante ni bëriwuñu kattan bëriwuñu man-man amuñu xel xel mi dafa nëx ay dongay daara lañ ñooñu buñ nee tu dañoo bëgg Touba zéro déchet laaj na ndimbal ndimbal loolu dañ koy tàmbale ci mboolem ñi dëkk Madiana 1 ba 6 borom kër yi nag ñoo ciy njëkk borom kër yi ñooy ñi ne ñoom lañ ciy njëkkee a xam ne ñoom ñooy borom kër yi di ci yi soxna yi di ci sonn soññ njaboot gi njaboot gi génn nga xam ne dañoo nekk ci quartier bi di fi liggéeyee te dëkkuñu fi ñooñu tamit nañ xam ne quartier bi seenu quartier la ndax fii la ñuy li nga xamante ni mooy teranga fii lañ koy wute si kon ñooñu kenn waru leen a mën a gën a jàpp ci quartier bi moo tax ñoo ngi lancé appel di woo ñëpp comme ni ñu ko waxe woon suñu xol nag dafa sedd bu baax a baax a baax a baax ndax woote ñu wuy si la dara fayu ko te tey yàlla dafa dogal ñu woote wootee ñu wuyu si ñu wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh